yow sa nawle moo la paasal yóbbu la ba Italie 4 millions nga dem ba Italie gis góor ñi xëy fajar di wàcc guddi góor ñi dañoo ñeme sedd de foofu daan doole rek moo fa am kafe sax danga koy jënd juróom amul maye tubaab xamul maye xamul ñaala goy naa ko xamul sàmbay mbayaan nga del si waat ndax amoo métier doo xëy doo gont dangay neloo ba 3 heures 4 heures 5 heures nga sangu solo def sa essence war dëkk bi xool diaspora bi tey li fi xew yàlla bu ma jur doom ju mel ni yow tekki woo doo tekki dara xoolal sa alal li nga jox sa yaay xool ko man li may jox sama alal sama doom yi damay jaay ba jar jaral ma indi jox ko samay doom man du ma sàcc du ma fen du ma mooy yàlla ma jaay sama bopp bokkuma ak <laughs> lu dangaa reeb damay seeti sa baay karab espèce de karab mais mu naa da tayle man bi ma juddoo ba léegi mosuma xam ni ñuy taylee or man du ma tayle or du ma jaay sama dara man damay ëmb sama yére ba mu egg ma jox ko ñu ko yelloo te duma ko wone woo duma ko bàkkoo yow di nga dégg sa nga dégg loo mos a dégg maag yow la dee ma ndogoo rek ma lay xëddee naa la xëddee ba nga xam ne lépp dëgg la ndegam yow yaa man a toog ci youtube bi tooñ ma ba pare wëlbatiku tudd sama tur wëlbatiku ni man ne damay xas munoo maa xas dama seet sa baay